Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer mbokk yi ak xarit yi ak wëllëre yi bàyyikoo nañ fi ngir euh, fekk si bis bu am solo bu nga xam ne si nii moom la amal fii di Touba Athio ñu leen ko waxee woon ñu ngi nii toog ak euh, Serigne Fallou soo moom sëriñ Serigne aw a Sow bàyyikoo ba Guédé euh, du lenn rek lu dul jëmmi bis bu tedd bii du doon mbégte moo xam ne si nii dinañu am solo lool ñu ànd ak moom waxtaan woo xam ne si nañ ko mën a dolli ko sëriñ bi ci euh, lii nga xam ne si moom lañ nekk mooy bis bu am solo bi euh, moo tax ñu bëggoon lenn ci ay kàddu yoo xam ne si rek euh, dinañ la ko laaj ci diggante sëriñ Thierno Bousso ak mboolem njabootuk sëriñ Mbacke Bousso maanaam mbooleem njabootuk sëriñ Bousso bi rek ay kàddu yoo xam ne si di nga ko ci mën a rotal sëriñ bi. bismillah. alhamdulilah inna waliyallah wa tawfiqi ila billah jërëjëf euh, li nga wax mën nañ cee wax bu ndax euh, placé nañ pour wax ci ndax Serigne Thierno kenn la ci mbokk yi ci mbusoobe gi mu diggu ci lool ci yaari wàll yëpp um man wa aban kon li ñuy wax bette bette mbusoobe kon mooy Serigne Thierno Bousso ah, ba mu ko defee ah, ba mu dikkee sax ci fii di liggéeyal Serigne Touba di dimbale taalibe yi dimbale mbokk yi mu sos nag bés màggal gi ngir fàttali kooku Serigne Fadilou Mbacké ak di ko ci ñaanal muy bés boo xam ne yàgg na koo def ci dundam ba jóge fi njabootam di ko wéyal bas bi nekk tey jii kon boo nu laajee ne nañ ci wax ci turu euh, sëriñ euh, famille bi nu demee woon ci famille bi loolu mën nañ cee wax ndax kenn lañ ci famille bi di kenn ci ay doomam yoo xam ne yi moo nu fare ci ñaari côté yëpp muy watug ndey watug jur kon mën nañu suñu baay la mën nañu suñu nijaay la kon loolu war naa tax ñu mën a wax sañ wax ci moom ñaareel ba itam mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo euh, sët sëriñ Bousso bi ak sëriñ Saa Bousso yi nga xam ne ñëpp ànd nañ tey ji bis bi ñoo koy màggal nun kenn lañ ci mbooloo moom ku li fi teewal mel na ne sax noonu lay tudd di tudd président bi waaye noonu fi teewalal mbooloo mi yëpp ñi fi teew ñëpp ànd ak noonu nag ci bis boobu di ko màggal fi euh, di nga wax ci diggante Serigne Thierno ak njabootu Mbusoobe nekkin wu rafet la woon ànd bu rafet la woon ànd bu jekk la woon de ko ne kenn koo xam ne kii ku siq ñëpp jàmm la ku yéene ñëpp jàmm la kuy la ak ñëpp la amuloon ak noon ak kenn du mbokk du xarit tal du dëkkandoo kon loolu moo ko may bisam bi ñëpp taxaw ji niñ ci taxawe Serigne Thierno mboolem njabootu Mboussobé gi ñëpp ay mbokk ay mbokkam lañ waaye ay xaritam lañ ay wëlëreem lañ ba tax na ay njabootam ku mu tudd uh, doomu Serigne Touba rek mu <laughs> ngi la tuddee njabootu euh, Mboussobé gi ñii ay ba ay magam ñii di ay doomi yaayam ñii di ay doomi baayam ñëpp ñu leen tuddee ay doomam jox leen ko ñu yar leen jàngal leen kon loolu tegtal na ci ne kon Serigne Thierno ku jaxasoo woon ak ay bokkam la waaye ku jaxasoo itam ak njaboot Serigne Touba woon tàmbalee ci Serigne Mourou Moussa ba ci Serigne Fadilou ba ci Serigne Blane mi nga xam ne moo fi mujj nekk ak moom kenn ku ci nekk rek la mu war sërgati ak moom def na ko mat sëkk sëñ Fallou mbokkam la woon waaye xaritam la woon wëlëram la woon wax ne seq nañu lu ne ci ay masla seq nañu lu ci ay teraanga seq nañu lu ne ci ay njekk seq nañu lu ne ci dem ci ak taalibe diggante taalibe ak ak ak ak sëriñam kon foofu xare wala foofu yëpp itam sëriñ Thierno doom koo xam ne kii itam euh, mën nañ ne ab royukaay la bu wér a wér ndax ay jikkoom ndax ay jëfam <coughs> ndax ak baaxam kon bis amee tey jii yu dëkk fii nga laaj loolu war nañ cee mën a wax ci loolu ñu tubaarkàlla jërëjëf euh, sëñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne seen euh, rotal nga ko jëmee ko ci bu baax seen di sëriñ Thierno Bousso euh, waaye jëme ko ci mbooleem njabootu Cheikhul Khadim yi nga xam ne si daana jëflante ak ñoom ci anam bu rafet a rafet ñu ngi la ji sant bu baax xanaa kàddu yi ñuy sàkkuwaat rek mooy yoo xam ne dina jëm ci kii nga xam ne si ni moo fi nekkal tey di Cheikh Mamadou Fadel Bousso nga xam ni waajuram wu tegoon tànkam rek euh, fa la teg tànkam teggu ko euh, yan kàddu nga ñu mën a andi ci moom ngir ñu mën cee ndaw ñu mën cee roye ndax euh, référence la ñi nga xam ni si ni ñoo fi nekkal Cheikhul Khadim bokk ci jëwrinam yi waaw jërëjëf li nga wax ci Serigne Fadilou mu fi nekk Serigne Thiano tey day mel ni nit ki fekkee dañ ko jël fondation ko fondation bu baax formé ko ni ñu ko war formé amee ko fa ñu ko war a amee day mel ni mel ne neen mooy kiiman ci moom waaye bu baax doom kiiman ci moom lépp lu mu baax rek xeeb dañ ko safaan ba kay moo yem a feeñ moo yem a rëy ci moom waaye moom doon na koo xam ne kii moom itam li sëñ Ceerno am ci Mbusoobe la am ci Mbusoobe ndax moom itam wetuk ndeyam kon nag li ko war mel ni diggam ak njaboot ak Sëriñ Tuubaa diggam ak mbokk yi yëpp ma nga ciy jéem kem kattanam ma nga ciy mel ne melal sëñ Ceerno nag a matale daa neexut dëgg-dëgg jàmbaar la itam ko gwet tax na ñu ngi koy sant baax bi di ko ñaanal yàlla dimbali ko defal xew li a baax ndax lépp loo xam ne itam mi ngi xew mi ngi cee taxaw lu mu ko taxawee mi ngi fii ci àccu waaye ma nga fa jiitu itam kon moom ña fa nekk ñoo am taxawaay lépp lu war a ñëw dana ci ñëw lu war a ñëw itam dana ci yónnee mënut a ñëw dana ci yónnee kon sëriñ Fallou moom itam wax dëgg yàlla taxaw mbokk yi rafet na diggam ak taalibe rafet na diggam ak dëkkandoo itam rafet na ba tax na ñëpp dañ ko seede mooy lu baax rek kon dañ koy ñaanal rek ñoom barke sëriñ Thierno ak mu àggale ko ak dara ci barke sëriñ Touba tubaarkàlla jërëjëf euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yi am solo yi euh, di la gërëm te la ñaanal suñu borom bàyyi la ba gën fee yàgg lool te gën a wér ba mën a mottali mboolem naa li nga xam ne si ni sa waajur bu baax wa naaloon na ko ak ci mbooleem mbokki sëriñ Bousso be yëpp ak mbooleem mbokki ñi nga xam ne ñoom nga bokkal sëriñ Mamour Anta Sali barke Cheikhul Khadim ñu ngi lay sant bu baax a baax la gërëm kàddu bi am na solo lool jërëjëf euh, jërëjëf Bousso Bally wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa xayr xadimihi ajmahin wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi fi teew yépp bokki taalibe yi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk noo ngi maase di nuyu ñépp ci turu sëriñ Falilu Buso mii mu àndal nga xam ne mooy xalifab sëriñ moo Soxna ak bokkam yu baax yi nga xam ne bi xew-xew bi amee te bokk yu baax yooyu naal ci xalaat bu rafet boobu ñoom ñoo daal di jóg fas yéene ànd ak moom gunge ko ngir lu ñu bokk ba ñëw taxawule su ko ci jotaay bii tey ñoo ngi leen di jottali nuyoo njaboot googu yépp itam di nam njaboot googu nag di nuyu di jiital ci seen nuyoo sëriñ Fallilou Bousso mi nga xam ne moo fi nekkal sunu waajur woowu di sëriñ Thierno. te di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko fee yàggal lool te wéral ko ba li mu am ba yéenee liggéeyal way juróom gu tedd woowu mu jëfe ko nu kawe njortam ngir àggaleel ko ay yéeneem ak i naalam te jëfal ko jëfi boppam ju dëppoo ngërëmu sëriñ Thierno di santit bu baax njaboot gi nga xam ne ñoo topp ci moom muy sunu doom yi nga xam ne ñoo taxawal tey jotaay bii di jotaay bi nga xam ne moom lañuy ñuy laaytaayee bis bu mag bi nga xam ne moom la jëm ëllëg te sunu kilifa gu baax googee nekkoon fi daan ko amal daan ci dajale taalibe yi di ci dajale jullit yi di ci dalee dajale itam bokk yi doon ci dundal itam ak bokk doon ci taxaw taxawaayu taalibe doon ci taxawaay taxawaay yu rafet yu am njariñ yu ñu daan dund di nuyu ci njiitul njaboot googu sëriñ Mamor ñi nga xam ne mooy doom yi sëriñ Seex May ci ni nga xamee ne noonu la ko sëriñ Xaadim waxe waaye di nuyu itam njaboot gi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci kër sëriñ Xaasim teew fii tey rawatina ñi nga xam ne ñoo fi jóge ci Seex Abdul Baaxi mi nga xam ne moo fa nekkal sëriñ Xaasim yi di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko fi yàggal lool te wéral ko te yéene ji nga xam ne am na ko ak pas-pasam ji nga xam ne xamees na ko ci moom yal na ko yàlla ak sëriñ bi jàppaleel boppam ak sëriñ xaas ba mu yeggalee ko fu kawe njortam te ñu ànd ko ak moom di santit njabootam gii mu yebal ñu ñëw di santit euh, sëriñ xaasim mu sëriñ seex mu sëriñ xaas moom it ñëwoon na ak sëriñ xaasim mu sëriñ alaaji mu sëriñ xaasim moom it ñëwoon na ñoom ñoom ñëpp ñoo ngi leen di doll delloo nuyoo ak i cant ki ngërëm di leen yóbbante ay nuyoo ca seen kilifa yenu bàyyi ko ba ñëw jotaay bi di sant bu baax sëriñ Gana Messere Maxtaar ci kàddu yu rafet yi nga xam ne indil nañu ko fi di sant sëriñ Maam Mooraat ci loolu ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci ak yitte ju mat ji nga xam ne def na ko ci ba mën nu koo indil fii ci barab bi ba mu defal nu fi lii nga xam ne jaroon na ñun ñi ñëpp ñu àndandoo dem fekki ko foofa ngir ngir dégg ko ngir buñ ko déggee dana nu mën a jariñ buñ ko jàppee kon yàlla na nu yàlla dimbalee nu jàpp ko te jëfe ko ndax ndollan la ci lañu ñu nekkoon ndollan la ci liñ doon jéem a dund kon nu sant ko bu baax waaye nu sant nag bu baax soxna maam Bousso Bousso mi nga xam ne moo nu ubbil alxuraan ndax loolu néewaa na lool fi nekk nii gone gu toll noonu mu toll mën a taxaw ci kanam mbooloo mu mel nii yëkkati fa kàddu yi alxuraan yu mel ni yim fi yëkkati te amu ci benn déception boo xam ne mën nañu ko cee wax rafu ci deful dara wax kaddu yu wér wax alxuraan ju leer naññi loolu tawféex la yal na ko yàlla jàppale ci dara darajey ay maamam ba li ñu sëmbaxtal ci moom sunu borom dimbale ko ba soxna daaro mi ko yor di ko jàngal alxuraan mu dem ba moom ci boppam mu yor ay daara di jàngale alxuraan te génn ci daara yi soxna daaro noo koy sant yàlla di ko sant bu baax a baax ndax loolu dey tegtale na ne ndigalu sëriñ tubaab moom mi ngi fiy dox bu baax ndax Serigne benn taalibeem bu mu tuddaloon bu amoon ngénte yàlla dogal doom ja Serigne tubaa jege fa mu indil ko doom ja ngir mu tuddal ko ko Serigne tuddal ko doom ja mu ñaanoon ko ne ko tuddal dama bëggoon nga tuddal moo ko soxna jaara Serigne Touba tudde woon ko soxna jaara gëj a gis taalibe boobee lool ba mu am juróom-benni at wala muy dugg ñaar juróom-ñaar Serigne Touba koo gisaat ba mu ko gisee rek mu daal di fàttali ko loola daal ko ne waaw ana sa doom ja ma tudd la ja nga ma tuddloo woon te tuddloo ma ko soxna si mu daal koy bëgg a wax dayob na mu toll daal koy wax ne ko su fekkoon ne góor la day toll na ci dem kër eh, dem dem daara bu doon góor la toll na ci dem daara sëñ Tuubaa da koo gëdd dal ko ne ba muy jigéen nit di waaw ah, ba muy jigéen nit kon dafa war a dem daara kon loolu mooy li nekk ci keppaaru Seexul Xadiim ñu di ko dund kon loolu ku ñëw fii tey fekk nga ko fi kon nag loolu itam jar naa sant yàlla sunu borom tabaaraka wa taala bu baax a baax a baax a baax ñaan yàlla ak sëriñ mu gën nu koo jàppal daara ji gën nu koo sëmbaxtalal ci tawféex yi nga xam ne moom la doon taxawee lislaam doon ko taxawee diine lislaam ba mu àgg fi mu àgg yal na ko yàlla yal na ci yàlla boole daara ji mu bokk ca kenn ya nga xam ne dana yanu loole mu doon bëgg ak wut ba sunu borom def ci tawféex di santit bu baax a baax a baax sëriñ seexu naa mi nga xam ne moo doon jàng xasida yi mu seexu naa awa moom it noo koy sant bu baax ndax ndaw la moom it waaye xasidam yim yim fi yëkkati li bayit yi di gàtt gàtt wow na koŋ te itam dëggu na te it ku ko li muy def lu mu lu mu bëgg la waaye lum man la itam loola itam jar na koo sante bu baax a baax a baax ndax xasida yi kat sëriñ tubaa dafa wax ne mënees naa jaar ci xasida yi sax bañ am benn sëriñ ba xasida yi yóbbu la ci yàlla ba ngay mën a xëy di faj ay aajo te doo jaar ci benn sëriñ loolu sëriñ tubaa moo ko wax ci xasida yi sëriñ Touba it moo wax ne xasida yi soo amee gone sax mu am melokaan woo bëgg mu dem ci moom neena na bul ko xas bul ko dóor jox ko genn xasida rek ne ko dee ko jàng suba ngoon dana ko yar dana ko jubbanti ba teg ko ci siraatal mustaqim sëriñ Tuubaa yi dafa wax ne bu fekkee ne ndaw euh, nit toog na di jàng xasida maanaam wala mu toog di ko déglu seytaane waajal ko ak pexeem yu rëy yooyu kàttanam gu mag gi jëm si ci moom ngir yàqal si ko nee na bu ñëwee fekk ko muy jàng xasida wala mu toog di ko déglu day mel ni nee na xasida gi day jóg dal ca pexe ma nga xam ne moom la Iblis doon def ba buñ la ko doon misaal ci jamono ji ñu toll ñun day mel ni ballon boo waloon ba mu fees nga takk ko dóor ci balu fetal nee na noonu muy tasoo noonu muy yàqoo noonu la xasidaam di def fexe mu seytaane fexeel ab taalibeem dikk fekk ko muy jàng xasida wala mu toog di ko déglu kon yaakaar naa ne loola it ku ca nekk te te te te mucc ci seytaane yaakaar naa lu jafe la ndax kattanam ngi ko yàlla def doole ji mu am waaye sëñ Tuubaa dimbale nañu ba wax loolu araba min sihriya iblis al marid ba bi xasaa idee yaxtaji murid kon taxawaay yooyu nga xam ne moom la am yaquudu saalisi ila allahi al murid musansihan li xayrihi kaydal marid kon yaakaar naa ne loolu wane na ne taxawaay boobu mu taxaw moom it santees na ko ci gërëm nañ ko ci bu baax a baax noo ko ci ñaanal yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu defal ko ci tawféex waaye nag di santit bu baax a baax a baax sëriñ baaxeer ci way yu rafet saxir dëgg la way yu rafet yi mu def waaw ah, Abdou Baaxi moomu way yu rafet yi mu def ngir euh, euh, euh, wax ko ci wàllu wolof dun génnee ci dundu sëriñ Moor mu am solo lool ci dégg neex a dégg it neex a xam ndax bu ko wayoon arab dana am ñu ko xam am ñu ko tëree xam waaye bi mu ko waxee wolof ñi fi toog ci tànt bi yëpp dégg nañ ko ñi fi toog ci tànt bi yëpp dañuy xam loolu itam mooy la daloon sëriñ Falilu Mbàkke sëriñ Fallu dafa am benn discours bu mu doon def boo xam ne daf ne mën naa koo wax ci araab mën naa koo wax it ci tubaab ndax am naa ñooñ bu ma leen ko wax loo ñu wax ko dal ne waaye nag du ko wax ci arab du ko wax ci tubaab ay wolof laa koy wax ndax ay wolof laa koy wax yooyu ñaari baat la yoo xam dañoo niroo waaye bokkuñu lu mu si jublu wolof laa koy wax man mi koy wax ndax ñi ma koy waxal ay wolof lañ moo tax mu ne ay wolof laa koy wax ndax ay wolof laa koy wax waaw loolu soo amul seetantal dëgg sax doo xam lu mu jubloon a wax kon yaakaar naa ne wax wolof lu am solo la ci boo nekkee ci biiri wolof da leen di jëriñ lool sëriñ Touba sunu yaakaar teeg ëllëg bi sëriñ Moussa Ka di tàmbali ndax moom mi ngi wax boppam di mandaxale ci sëriñ Moussa sëriñ lii muy def sëriñ Touba moo ko digaloon waaye daf ko ne woon ndigal ba mu jot ndax euh, euh, ndax ndax ndax jaloore gannaaw borom dal ko ne waaye Moussa digal naa la bu keroogee na nga ko wax ay wolof ndax ay wolof ngay waxal waaw moo tax waaye sëñ Moussa ko ci ëpp yëpp yu njëkk yi moo doonoon arab mu tàmbali woon ko waaye ne ko de ko def wolof moo waral yi ci ëpp yëpp wolof la moo tax ne boo digal dulloo ci waxe sëñ Moussa sax danga nga dégg mu ne euh, li ngeen di wolof moo tee ma def koy arab yu rëy te bàmbaay wolof su bépp yaaram ba gotti ko bu yowmal xiyaamee bab arab procureur a xam dinaa wax Serigne Touba lu tax bab arab yadam tërëb wolof ak bopp yaaram ak wax yépp a yam lu jóg ngir rasulullahi batin bi saf xorom xanaa ma yërmandee tax tey loxo yeeg wax yi tàggaloo bu dul woon rasulullahi làmmiñ yi taqaloo te baa xam nga moo tax alxuraan wàcc toggaloo nde yaaram ya maamam yay xurey sin di càllaloo li lee tax ba furxaan ngën ji yaaram yi wattu ko te lammiñu xiisaa tax ba indiilu dép cëram saboora taxoon daawoo da lammiñ wa mel ni lem su daan jàng rab yéeg jinne nit ñi bokk gëm ku xam lii may wax daal doo soxlu woykat ba gotti ko dexu kayre man laa naa ne maag sa Saddiq dañoo xóor si géejug Bamba bay xelli ndox mu neex sëriñ bee di géejug yàlla naxtil ba mel ni ñeex sëriñ boo lambaajee mbooti biiram mu indi teex waaw kon nag yaakaar naa loolu suñ ko seetee bu taxawee moom sëriñ baax Baaxi taxaw wax waxaat euh, euh, li mu wax ci sunu maam jooju euh, dana gën a dëgëral suñu pas-pas dolliwaat na lu baree baree bari loo xam ne danañ ko nafare ci moom ba mën koo dolliwaat ci li nga xam ne doon nañ ko jéem a royee ci moom kon moom it doo koy sant di ñaan yàlla def ko mag te def ko magum lislaam te sa mbëxtal xam-xam ci moom bu baax a baax ba mel ba man mën koo gën a yaatal ni mu ko bëgg a jéem yaatale di santit bu baax a baax a baax sëriñ Abdou Ahad Bousso ci moom it kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko fii ndax moom it am na solo lool saraa na ko moom it li mu wayoon moom sëriñ Abdou Baaxe moom saraawaat na ko moom Cheikh Abdoul Ahad ci euh, saraa bu yaatu boo xam ne euh, leeralal nanu bu baax lim jublu woon a way kon loolu it tegtalaat nanu wax nanu te ku dégg kàddu yi itam xam ne kàddu yu dëggu la xamit ne ki koy wax ëmb na ci biiram lu bari lu mu génnewul ci làmmiñam nit ñi déggu ko ndax xam naa nekk ak yar bi ak teggin yi mu ko booleel yépp loolu lépp di ay tawféex yoo xam ne day mel ni cant yi ak ngërëm yi sëriñ Fallou Bousso mii la war ndax li ko waral mooy lu fi waay wax tey mbaa nga def ko fi day jàpp ne moom nga ko waxal day jàpp ne it moom nga ko defal kon mi moo moo waral saraab sant ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon a jël ay parole yépp kenn ku ne fa nga jaar la nga ko ca defal la nga ca wax wala la nga ca def lépp moom nga ko waxal moom nga ko defal mu sant la gërëm la Cheikh Abdoul Ahad euh, dëggu na lool ci turandoom na mu ko waxee woon du ngeen dégg mukk man Abdoul Ahad ma ne leen Serigne Touba nee na rek laa leen fi wax moom itam lim nu fi leeralal jëfi Serigne Mor la waxuñu dara leneen wala keneen ba nga xam ne danañ ko mën a xam man koo jëfandikoo loolu ñoo ko ci sant yar beeg teggin yi mu ko booleel it moom la Cheikh Abdoul Ahad yoroon ndax sëriñ bay jaxate ba muy dafa am bés sëñ bay jaxate sëriñ Abdoul Ahad ñëw këram mu bëggoon a wax ak moom ci wàllu cër aada bi ko yàlla defal seen diggante ñoom ñaar muy nijaayam la waaye sëñu ta wax ak moom itam ngir sëriñ tubaa ji ngir warmay sëñ tubaa ji mu daal di koy wax ne ko xam ne moom daana wax ak sëñ tubaa waaye xalimaam la daan wax sëriñ bi da daan bind eh, way ay way mu daal di fabar xalimaam wax ceeg Cheikh Abdou Lahad euh, la la la ma ci jubloo wax nag mooy fi ma tollook moom ci wax rek muy yar bi daf ne day woy Cheikh Abdou Lahad ba agsi ci yar bi daal ko ne yar bii nga yor yor ko biir ak bitti moo di sake moo gën ci yow kër yu baax ak nit ñu baax ak i jur sa baay gën ñëpp te yar dong dong la yor yoral yaram ba te koo gis dee ko sant ka yar sa baay gën ñëpp ab yar ndax dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doo mos du yëkkatib yar di teg nit waaye moo gënu nit ñay teg nitub yar akay jànnee ka yeewa ka la dogalub yàlla rek tàggoo ndax soo nee bu ne lee ana bu yàlla dogalee noo cay def nga ne ko dama koy muñ mu ne lañ man de waroon na ma yow man bu yàlla dogalee damay neex waaw te loolu wane na ko foofu bi mu dikkee sañ ci Touba it bi ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fekk see wax ko ne ko sabarom nee na yaa na la sàmm gi ak wattu gi ba tax na lu lay lor du la fekk su yaa ngi ci dëkk bi itam nattu bi doo ci jot ba sëñ Tuubaa waree daa génn daa génn Tuubaa dal dem Jolof toj Mbàkke Bari googee daara sanc ko ngir lan gàttandu ñu nattu yàlla bi ngir mën a dal ci kawam bi yàlla bindee jaam ñi ba nëgëni si lañ mas a xam mooy nga nekk nga nekk kay euh, euh, Tuubaa mu wóor la ne nattu bii mu ngi ñëw te dana dal ci sa kaw bu la fekkee Tuubaa boo ñëwee accu nag da nga ci mucc nga daw ñëw accu ngir làqu si mucc ca nattu ba naroon dal sa kaw waaye fa fa nga nekk doon kaaraange la nga génne fa nga kaaraange la nekk ngir dem fa fa la nattu bi mën a dalee Sëriñ Tuubaa rek lañ ci xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi muy gàddaayee Makka di dem Madinatu Munawwara ci ndigalu sa borom booba l'islam la doon rawale ji ak niti l'islam ak doole l'islam ndax doole l'islam bëreegut niti l'islam bëreeguñu te yëfar am nañ kattan am nañ doole te am nañuy pexe yàlla digal ko mu gàddaay ak ñi am ci lislaam ak ñi ko topp dem madinatu munawara yar fa lislaam yar fa diine yar fa ñooñ diine ba diine am doole lislaam am doole mu door a ànd ak doole lislaam ak ñooñ lislaam ña gëm ànd ak ñoom delsiwaat makka xeex waa makka mooy fattu makka waaye Serigne Touba rek lañ xam ci ku sa génn ci ëtt ba nga nekk muy bu la yàlla sàmmal looy la du la fekk nga génn fa ngir dem fa la dale ji ne yaakaar nga ko boo mënul boo mënta àgg ca loola it war nga yëg jamono sa wërteef nga di waaw kon rafetal ak bokk ak doxuk bokk ci loolu la bokk te it ak bokk ginnaaw yàlla moo ko sàkk yebal ko ba muy ko yebal muy jooy naan ko da nga maa yar nar a yebal fu ñu may yàqatee wala fu ñu may doge fu ñu may defee nangam ba muy dalal ko wax mooy rek soo demee ndax du la doy ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog ko mu nangu loola xam ne loolu doy na ko mu door ko wàcce ginnaaw loo xam ne nag boo ko yokkee yàlla moo lay yokk soo ko dogee yàlla moo lay dog yàlla nañu yàlla musal ci dog dogi yàlla suñu borom tabaraka taala ndax ab jaam bu ca dal da xam ne kooku moom bokku ci kon nag yàlla nañu yàlla musal ci loolu lii nag dundal ak bokk la mag ña dañ daan fekkente daan tukki mu jaral leen at ba at sax ñu war seenu fas wàcc kër sëñ Thierno Bousso toog sëñ Thierno andi njaboot gi bokk jaboote ñu bokk gis leen waxtaan ak ñoom xam seen njaboot lañ ca war a lijjanti ñu lijjanti lañ ca war a waxtaane ñu waxtaane ko donte ba déwén bokk yi dañ daan def loolu di gisante di jaxasoo di waxtaan di dundal bokk gi ba ku ci war a dem kër ñu xam ne Alaaji buso am na njaboot gu war a dem kër man caa xam ne alaaji bu sa ca àccu am na njaboot góor a denc ñu man leen a boole waaye su fekkoon bi kenn ku da ngaa fa nga toog yor la nga yor yor sa njaboot kenn demul ci kenn kenn xamul kenn jaxasoo googu du mën a am sëriñ bu soobee ak maam sa mi nga xam ne ñooñu meññi loolu lañ doon dund ñoom ñaar ñoo bokk benn bàyyi muy sëriñ ma Bousso Awa Mbaye mi ñuy wax ma Mouhamed Bousso mi ma tabara jur Ahmed Ali jur ko waaye Mouhamad sëñ saa soxna Astawaalo mi lay xamal ne ñoom mag ñooñu yàlla da leen a tànnoon muy nit ñu baax ñu rafetal seen addina rafetal seen bokk tey doon ko dund mooy maam saa bi nga xamee ne sa baayam nelaw na rek nijaayam da koo jël si yóbbu ko njàmbur waaye ba mu ko yóbbu da koo daal di sëñ soxna maam Sawal Mbàkke ci boppam da koo daal di jëli li ci saasa daal di wax sëñ Bousso bi ne ko kaay demal ma njàmbur gaaw jëlali ma sa koo euh, euh, kooku du doomi kër nijaay mus doomu Bousso bi du doomi kër nijaay doomi kër baay la demal jëlali ma ko tandil ma ko ñu dem jëli ko indi ko mu boole leen ak sëñ bu soobee ñu bokk jàng xam alxuraan bokk jàng xam-xam bokk lépp mësu ñoo tàggoo ci dara ba nga xam ne bi maam Massawaalu Mbàkke di di di laxasloo sañ bu soobee ngir mu dem gànnaar da ko woo ba mu ñëw mu woo maam saa mu ñëw mu ne leen ginnaaw léegi wattu ngeen alxuraan jàng ngeen xam-xam ba géeju samp ngeen daara yéen a ngi jàngale te maam Massawaalu ko bari woon xam-xam la topp na leen ci wàll googu ba bañ fees dell ba gisatul téere am xam yu ñu war jàng fii ci réew mi mu door wax sëñ bu soobee ne ko kaay laxas dem gànnaar téere islaam ya fa ñëw te ak seegul ci réew mi nga dem jàng ko soo ko mokkalee nga ñëw jàngal ko saabu su sark ji ngeen di ko jàngal waa réew mi te nga bàyyi fi saabu su mu yor daara ji di jàngale alxuraan xam-xam te nga dem yow kon boole ay bokk boole ay nit boole nit ñu bokk bàyyi boole nit bokk gu rafet loolu mu mu ju munta munta munta weesu lu mel noonu kon loolu ñu saxaloon ci askan wi moo taxoon ñoom ñaar ñoo ñu ñu boole loolu nangu woon loola te ko dundal moo tax jigéeni kër saabu sa yëpp dañ leen yóbbu woon ñu sëyi kër sëñ bu soobee góori kër sëñ bu soobee jël leen góori kër sëñ Bousso bi yëpp dañoo jëloon jigéeni kër sëñ Saa Bousso yooyu jox leen kër sëñ Bousso bi jël euh, jigéeni kër sëñ Bousso bi jox waa kër sëñ Saa Bousso loolu so su ma la ko bëggoon a jàngale tey bu ma ne la kër gi rek doy na ci mu doy maam Daaru Bousso mi jur mi meññi suñu waajur woowu muy Baay Ceerno doomi sëñ Bousso bi la ah kër sëñ Bousso bi lañ ko jëlee jox ko sëñ Omar Fañu mu am ci maam Ceerno ah kon yaakaar naa ne loolu taxawaay boobu mooy loolu jëmm jii toog noonu kasaalika sëñ sëñ Modou Khalifa Niang mais ca Gédé imam ak sëñ Ibrahima Bousso mi nekkoon Mirkilaan ak sëñ Abdou Assis ak maayi sëriñ xarit seen seen waajur Khalifa Niang ko jur sëñ Bousso bee ko jur ñu jox ko sëñ Moussa Faty doomi sëñ Bousso ah, sama baay Astawaalo Mbàkke mi ko jur soxna Aminta bu kan ni waajuru Cheikh Abdou Khadir di doomi sëñ Bousso bee moo wàcce woon Astawaalo Mbàkke Astawaalo Mbàkke sëñ bu Bousso mi nga xam ne mooy sama maam soxna Aminta kan ni moom la jëloon def ko ab jigéen wàcceloo ko sa euh, euh, Astawaalo Mbàkke mi jur sama baay ah? ba mu amee doom bu jigéen nit mu tuddee ko soxna Aminata Kanni soxna Aminata Kanni moom mooy Aminata Bousso mais ñuy wax Aminata Bousso mbir kalanteem nekk fee ci gade tey di bàyyi baax yaay yu baaxeer Bousso ñoom ak soxna Fall ñoom ak ñàkk fay da yooyu kon yaakaar naa loolu rek exemplaire la ay tegtal la yoo xam ne soo ko seetee xam ne ñoom la leen waroon a dund ci ak bokk ak nañ ko waroon a jaxasee defewoon nañ ko yar nañ ci njaboot gi jur nañ leen ci war nañ leen yoon wi kon nag dundal loola ak taxawal loola bisub tey jii ca la kon bu ngeen dee njaboot goo xam ne da ngeen wëlbatikuwaat amal bis bu toll ni bii jëme ko ci jëmm ju toll ni ji ñu amul du may moom muy sëñ Ceerno wëlbatikuwaat fab cër bis bi teg ko ci loxoy sëñ Mor Soxna ak njabootam ñëw teewe si bis bi ngir xam ne mooy ñiñ fi fekk si leen fekk si mooy ñiñ fi fekk ñiñ fekk si mooy leen fekk si loolu mooy tawfiix ji nga xam ne suñu borom defal nañu ko tey ñu bokk benn jotaay tey lii la sëriñ Fallu doon wax naan waa ji na ngeen xamante xamante mooy indi am lente am lente mooy indi demlente demlente mooy indi jëriñeente te doomu aadama bu ne am na lu yàlla def ci yow lu mu defut sa morom su ngeen xamantee jaxasoo rek kenn ku ne bu gisee moromam lam ca war a def ci moom da ko cay def koo ko def ci moom lam war a def ci moom la am su ngeen gisee addiye jii sëriñ Falilu bu sa doon jox sëñ alaaji léegi tam teg ko sa loxo doon la leeral la ni lii da du dara ci dëggale ko kaddu ak yéene yi li nu fi indi la waaye du dara loolu lañ santaane woon ci ak bokk yàlla dafa fa mbokk gi li ci war a am lépp mu tasaari ko ci biir bokk yi lenn lu nekk mu am ku mu ko jox kenn ku ne lam la ca joxoon nga indi ko ca bis booba ngeen boole ko defaree ko bokk ga defaree ko bis ba bis ba jag kenn ku ne waat lam yor ñu bokk toogaat xaar bis bu mel ni booba loolu mooy bisu tey jii tey kon loolu moo waral ñun ñëpp dañoo war a ñëw kenn ku ne lam yoroon ak néew mu génne cee dara andi ko ñu boole koog liñ fi fekkoon ñu yor ko ak ñi fi taxawu ngir ñu taxawoo ko bis bi ba mu jag ndax kuy séentu ay nit am na lu la ca war te la leen ci war mooy liñ ci war te war nañ ko bokk def loolu mooy comp su ndaw soo yi nga xam ne moom la suñu alaj yëkkati loolu doon ko joxe tudde ko addiye joo xam ne daf ko teggi loxol sëñ euh, Fallou Bousso mu sëriñ Thierno yàlla fi gën a yàgg tëwér bés bi yàlla nañ ko yàgg def waa kër bàjjen so awa soxna it noo ngi leen di sant bu baax leen gërëm sëñ Cheikh euh, Guède ma fa nekk ñëwul waaye soxna wàllu ñëw na njaboot gi ñëw nañ ngir ta xam ne ñoo yam ci mbir mi te it maanaam xat-xati jamono la waaye tey kon suñ sañoon Guède ak kenn du fa des te it bokk gi nag ñoo ko bokk te ñun ñu ko bokk war nañ koo xam war nañ ko rafetal ak bokk nekkul ci mbuum mu rafet nekkul ci ku am oto kuy dox te jamono foofu la toll comme bu Bousso ñanga am na mbu bassin bu rafet sëñ Bousso moom amul mbuum mu rafet romb na ko rek yor otoom daal di ko ah, bu ñu ko ne kër sa mbokk mu ne ah kan kii ñu naan ah mukk moom dara daal jàll lu ko waral am na bassin bu rafet bu mu sol gu ne ci oto te sëñ Bousso day dox te amul bassin léegi nit ñi moom wëllooru wëllooru àdduna wi lañ def ak bokk saa boo gisee daal ñu barile ko ka ko ña ko bari la daal dañuy defe ne ñoom ñoo bokk ña ko néew la it defe ne ñoom bay boo ñuy daje ndax ñoo bokk ndax ñooy booleetuñu leen ci seen bopp léegi nag bu fekkee loolu moo di bokk gi loolu bokk gi day daal yàqu waaw ndax yàlla wërsëg moomu alal yàlla suñu borom la ju muy joxe te itam séddaliwu ko ci séddalinu jox ko ñëpp daa am ñum ci jox lu bari am ci ñum jox tuuti am ci ñum joxul dara boole leen ak ñu am kon nag kenn ku ci ne da ngay xam cër bala ci yàlla jox xam ñam la ca booleel xam lam la ca sant nga jëm caa góorgóorlu sa kéemtilaayal kàttan xam ne ki nga bokk lépp yéen a bokk lépp kon li ngeen am it yéen a ko war a bokk kon taxawaay boobu itam nañ koy dund ci bokk gi te xam ne loolu mooy li nga xam ne moo nuy jëriñ waaye li ñuy leneen lu leneen lu dul loola mun noo jëriñ dara te itam cër yi nga xam ne moom lañu sëñ Tuubaa jox muy li comme ni fi gànnaaw sa wax léegi muy ab seex wala xam ne daa am mbooloo wala mu am leneen wala mu gis nga fi ne euh, sëñ Muntaxa Basiiru mooy sëñ Tuubaa tey ci kaw suuf yàlla na ko fi yàlla yàggal ko xam pas-pasam kenn ku ne xam pëstéefam kenn ku xam fi mu toll ci nit ñi ak fi nit toll ci moom meññi baayam muy sëriñ Basiiru bàyyi ko fi muy ab sëtam mu toog fi di toog jotaayam waaye gis nga sëñ Basiiru mi gën a xeewu ci mbooloo mi su demoon siyaare ji sëñ Muntaxaa du weesu summi ay dàllam ci buntu kër sëñ Muntaxaa summi mbaxanaam ci buntu kër sëñ Muntaxaa sukk raam ci kanam sëriñ Muntaxaa génne wërsëgam lam ca tollool teg ci loxoy sëñ Muntaxaa sëñ Muntaxaa buy ñibbi tàllal ko ñaari loxoom ne ko ñaanal ma yàlla mu ñaanal ko yàlla mu wëlbatiku sant lool wëlbatiku waat dellu këram su fekkee damaa ànd ak koo xam ne sëñ Tuubaa da ko yebal ci man may yëwri ñoom ci yoonu sëñ Tuubaa bii ànd ak moom dem siyaare gi sëñ Muntaxaa loolee ma defal sëñ Muntaxaa bu bu ñu agsiwaatee sama buntu kër rek sëñ Tuubaa daal may delloo loola sama tool bi boobu sumi ay dàllam fee daal di sukk ci suuf raam agsi ci man yëkkati addiyam jëm dese woon jox ma daal may tàll ay loxo ko kon sëñ Tuubaa lépp moom la waaw ndab yi nag mën naa ëppaate waaye guu bi moom benn guu la ndax benn benn loxoo ko togg muy seexul xadim kenn ku ne lam la ci war a seetu seetu néegu ca kenn seetu ci kenn waaw te it jàngale woon na it bokk gi ni ñuy ànde ndax waxoon na fii ne kenn ku nekk mën ngaa gën say bokk ndax ngëneel àll yàlla la soo gisee soxna jaara ba muy dem kër yaa baayam digal ko ne ko royal astawaalo mbàkke sa ndey ji nga bàyyi ci kër gi te mbàyyi ku mel ni soxna astawaalo ak ni mu baaxee ak ni mu mel kuñ koy royaloo su kàddu ga gàttee ëmb na lu bari waaye la foofa fan la soxna jaara toll mooy alxuraan la yor ci loxoom jàng na ko ba tafsir na ko xam na yàlla borom bi xam dayoo ba yëg na ne ko ndeyam nu mu mën a mel ci ak baax ma nga jóge ci yàlla te it la jóge ci yàlla moom du jeex mukk li nekk ci loxoy jaam ñi mooy jeex maa ngi dëkkum yéen fa du maa ngi dallaahi baax mu ne gay alxuraan di atte di di ndax maa ngi daan nañ tegtaloo lool nga wax benn wax wala ñu wax benn wax ñu seet ko ci alxuraan ubbi aaya alxuraan bu njëkk a yem mandaxe ko ak wax jooju ba xam nu muy demee loolu la soxna a def ba mu ne gàyyi kaamil ba yem ci aaya muhammad muhammad aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah wa xaatimun nabiyyiina ah dafa jooy maa kaana muhammad aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah wa xaatimun nabiyyiina dafa jooy bi jooy yi mettee baayam da ko ne soxna bu so bu fekkee da nga maa nar a gàcceel toogal bañ a dem moo ma gënal dem gi ngay dem di wax leen maa ngay def leen mu ne ko bàyyi jooyu ma loolu mu ne ko looy jooy mu ne ko wax yàlla suñu borom darul deñ suñu borom moo wax ci aaya bii ne ab yonentu dootul wàcc ci gannaaw rasulullahi waaye man bàyyi waroon na maa fekk jamonoy am rasulullahi ba ma am rasulullahi mbaa ma am ko mel ni moom ci ga moo kenn amagu ko woon ba mu ko amee ba kenn dootu ko amati kon yaakaar naa loolu la ay tegtal la ay misaal la yu doxee yoo xamante euh, euh, moom la sëñ Tuubaa tànn askan wi ba Sëriñ waa wax na ci làmmiñam ne ba mu laataa ñëw am na ñaari askan yu mu junjoon yu mu junjoon a wàcc waaye bu ci nekk daa am lu mu ca fekk lu tax mu bàyyi ko ndax ne fee dafaa dem fekk fa rëy fee dafaa dem fekk fa àdduna dañu ñee dañoo bëgg àdduna ñee dañoo rëy mu waaj mu bàyyi leen kon moom bi mu laata ñëw àdduna àdduna leeroon na ko nañ moo ko tànnal boppam mu tànnal boppam askan wi tànnal boppam soxna su tedd soosu muy soxna jaara ngir jaar moom bi mu demee bay waxtaan ak soxna jaara waxtaan ak soxna jaara benn bis ne ko waaw soxna busu bi ngay bàyyi ko sa kër jur jëm si kër sëñ Mor amuti xew-xew mu ne ko axa kay mu ne ko la xewoon mu ne ko bi ñu demee ba ci guddi fas bi ma waraloon dafa tërëf ba ma beppee koo ci kaw fas bi jëppeelu wàcc ci suuf ñu ne ma mbaa gaañu woo ma ne déedéet ñu ma kon nag waraatal ñu dem ne leen daa mel ni gee jot na nañ ma may ma julli gee ñu may ma def samay lawraat door a waraat ci fas wa sëñ dal koy nettali ne ko pakk boobee la woon ndax booba su ma la bàyyee woon fi ko soob moo tànn fi mu bëgg moo tànn fi mu yaakaar ne war na faane moo doon ndab li nga xam ne xool na ndab li xaj li nga xam ne li muy indi ci la xaj mu jaarale ko ci bu ñu yàlla boolee ci loolee nan sant yàlla suñu borom te góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne ñun am nañ loo xam ne kat war a góorgóorlu na képp ko fi képp ku fi teew waxee daa am lu ma wax ci yow te bi ma ci yow àgguma ko te jàmbaar nga lool man li ma gën a neex ci yow mooy gëstu gi ngay gëstu bokk yi ak li nga ciy gëstu nga xam ne maanaam tey bari na ci loolu bu réeroon tey bu ñëwee ci yow man koo xamal loolu am solo la sun ñëpp yambaree ni sëñ bi sa réer dara kenn du ko xam boo léegi bu ñu laajee buñ ne diñu ne ak kooku de fi la newoon de waaye ci mag yi kooku ci mag ña la kenn xamul ci moom dara rek bu ñu xamul ci moom dara nan la ñuy fexee ba roy ko ban ko jariñoo moom mi na di ci jàmbaar loolu loolu nag mi ngi ko doon ne ci maamam sëñ Mor Soxna Mbàkke moom Mamour Jaar mi ñu ko tudde Soxna dañ ko joxoon soxna may mu sëriñ Touba may Kabir mu am bis soxna aw bu su ñëw ganee si ko ak sëñ Daam Abdourahmane Lo soxna may daal di fab xalimaam daal di wax ak sëñ Mor Soxna daal di ko ne sëriñ bi yaa ma tax a jóg su ma tëddee nga di ma rob bëgg nga ma farlu téléphone giñ naa ne yaa may dimbale giñ naa ne yaa fi indi maam xawa te yaa fi indi maam ak Abdou mujj mii dëkk ndaam yàlla nag nu yàgg dalale bëgg naa ci seen dëkk gi lool daa doon nelaw tey maa ngi xool saa xel mi dal ma sant lool ca góor ga nekkoon ba fari kon yaakaar naa boo taxawee taxawaay yu mel noonu tey ñu di la tudd di ko tudd nga defal lu toll ni li nga nu defal war nañ laa sant war nañ laa gërëm war nañ laa ñaanal yàlla sunu xool sedd na guy guy guy guy guy guy ci yow sunu xel dal na bu baax yàlla na la fi yàlla gën a yàggal yàlla na la gën a wéral ban mbooleem lu sëñ seex may naa loon nga yeggaleel ko ko jëfal ko sa jëfi bopp ju dëppoo ngërëmul sëñ Tuubaa taxawaay bu rafet ngay taxawee ci wàll yépp du ci accu gii rek du ci feneen du ci feneen foo fi am baat war faa dem wala nga am fa bokk war caa taxaw soo fa demee boo ca taxawee wala boo ca waxee xel yépp dal ci kon nag loolu des na la ko sant gërëmale ko ngërëm ak cant nit bu ko defee dañ koy bu xoolal bu cant amul woon njariñ sëñ Tuubaa di ko soxla waxuma yàlla suñu borom mi naan lañ sakkatu wala si dana kum ne waxuma sax loolu waaye sëñ Tuubaa mi nga xamante ni bii yàlla yëpp yàlla duyal na ko ba mu feesal bu cant ak be ab jaam bu ne ci jamono amul sëñ Tuubaa di ko soxla sëñ Tuubaa dafa yendu njaañ ge njaañu njaga ba jant so mbooleem teraanga bi ñu ko jox mu dajale ko jox def ko ci genn gaal dali ko dali woo sëñ Jaañ mi mu fekk si woon dali ko ne joxal ma ko sa bokk yooyu suut baat ci war may waxi sëñ Tuubaa xam nga bu doon sëñ bi daa joxal ma tëgg yi mbaa joxal ma géwél yi mbaa joxal ma nangam waaye sëñ Tuubaa moom dafa sàmm ko war ma ji dafa rëy dafa wax sëñ Jaañ ne ko joxal ma ko sa bokk yooyu suut mu jox ko ñooña te askan wu ne am na kilifa te moom seen kilifa dafa yënduwul keroog ñoom ñu ngi ko jox ñimiwuñ koo laal mbaa ñu def jara te kook ñëwul bi yàlla dogalee ngoon jot nag kooku agsi bi mu agsi ñu ne ko yow gan dala fee wutu sëñ Tuubaa fi la yendu waaye mbooleem li ñu ko fi jox ci ay teranga da ko def ci genn gaal jox sañ njaañ ne ko joxal ma a laal nag mbaa ñu te ñëwoo mu ne leen en ko ah, a fa laa bi fa sam te féeru jaar ci wetu nday joro ne ko asalaamaaleykum ñu ne da ngaa yendu yi fa jox yëpp da nga koo jox sañ jaañ ne ko joxal ma sa bukki lay sut baat sëñ bi ne ko na xam mu ne ko mbàkki ñooñu nga ko jox maay seen kilifa dama fee yenduwul ñu de ñu téye woon ko nag sañ ci a laal mbaa ñu wax ci te ñëwuma ma ñëw léegi nag ñu won ma ko ba noppi ma ma laaj la ñu ne gont nga man leen bala ma leen cee jox ndigal dama koo dabi ba wax ko genn kàddu door ñëw joxe ci ndigal kàddu googu tax ma dab si la sëñ Tuubaa ne ko kàddu gi la mu doon mu ne ko mbàkki yaa baax <laughs> dal koy du ma ci teg dara nag su ma la nee yaa baax ndax da ngaa tabe bëgg dëggal baax gee tax su ma yaa baax it ndax da ngaa gore bëgg dëggal baax gee tax ginnaaw xas na nekk dëgg du ma ci teg dara mbàkke yaa baax sëñ tubaab daa wëlbati laa ak moom joxañ ko baaraam bu tedd ba dal ko ne dégg kàddu googu tamit dëgg rek ba taxat ak sans fas yi rañaan jëm ci rasulullah sallallahu alayhi di ko liggéeyal kon am na lu mu def ci moom kon nag jërëjëf mbàkke moo moom la monsieur jiite xam ne ñoo fi teewal président de la république monsieur Macky Sall ak membre du gouvernement bi yëpp ma njëkkee ko société gi loolu laa doon waaye defe naa ñi ngi koy defar ah booy yéeg ci garab nag dangay jaar ca dàtt ba jëkkee délégation boobu lu ciy topp soog cee topp waaye daal noo ngi nekk Touba Accu màggal goo xam ne Serigne Thierno moo ko doon defal Serigne Fallilou Mbacké magam ja Serigne yëm ba di lépp ci moom pour ñi nga xam ne mosuñoo teew ci màggal gi ñu xam daal ni sëriñ Thierno ak sëñ Fallou seen ñaari yaay yi ñoo bokk baay ñu xam loolu tàmbalee ko ci xam-xam ci ñi mës fekke cérémonie bu mel nii soxna Daaro buso ak maam Awa Bousso ñoo bokk sëriñ buso bi Serigne Bousso bi ak maam Jaara ñoo bokk ndey ak baay ah, ki ko war a def def na ko waaye defal na ko ko itam ku ko mat a defal ki ko war a def a ko def waaye defal na ko it ku ko mat a defal ñuy nuyu président fédération daayira yëpp di sunu xarit di sunu lépp mi ngi nii toog di nuyu Serigne Thierno Ngom jiite mouvement bu mag moom it dana ñëw ci moom di nuyu honorable député soxna Daba Diouf di meeru Guinguinéo new nuyu monsieur Malick Ndiaye meeru Gagnick nuyu kilifa yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bis bu màgg la de bis bu rëy la de Serigne Fallilou yàlla na nga ko yàgg jiite baali ma Samba ak Cheikh waaye baax dañu koy doon ku la gën i bokk la gën gaynde du jur xar gaynde gaynde rek lay jur sëriñ Thierno nii rek la meloon soo fi mësaa ñëw bu la ñaanalee ba ngay dem la nga indi woon day jël lu ñu tollu teg ca jox ko ka lay gunge bu la gungee ba ci yoon mu boole lépp jox la nga wàññi ko geesu gis la nga joxe woon ñu teg ca lu ñu toll maa ko fekke <laughs> maa fekke man kenn nettaliwu ma jërëjëf baaxum waaw de ah waaw mais nag waaw kay délégation bi nga xam ne moom la président Macky Sall yebal adjoint préfet bu ngin ngi neew sous préfet bu ngéelu commissaire des renseignements généraux commissaire bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci renseignements généraux nekk ngin ngi neew représentant du commandant de la brigade de gendarmerie brigade gendarmerie bu ne ngir ngi new ki ko fi toogal représentant ñëw na ci délégation bi la bokk ba tey représentant du chef de sous-secteur bu Eaux foore Forêts Eaux àll bi ak ndox mi ba tey bokk na ca madame le maire de Guinguinéo honorable député Soxna Daba Diouf taalibe murid saadiq monsieur le maire de Gagnic Alaaji Malick Ndiaye maire Gagnic nee ko waa tund wi sikkuñu la de tax naa ko bërki démb bañ demee ndengaleer taw feex monsieur le maire de Wourour meeru uuruur defe naa noonu la de su ma juumee jubbanti leen ma de honorable député Moustapha Ndiaye xale bu yaru représentant du maire de Nguélo ak tous les conseillers municipaux ñoo ñëpp ñoo ànd ñëw ci turu président la république monsieur Macky Sall teew ci kanam sange bu tedd bi Serigne Fallilou buso teewal fi monsieur le président de la république ci bis bii bis bu mag bii nga xam ne sëñ Fallou woote na ko te daan ko woote yàlla na ko woote téeméeri at ci kanam te ànd ko ak yow ci barke Cheikh Mamadou Mountakha xalif général des Mourides kilifa yooyu yëpp ñëw nañ teew fi tey fekk si lii nga xam ne mooy xew-xew bi ci biir loolu monsieur Mamadou Faye maire de Ourour administrateur bu Feera taalibe sëriñ Fallu Buso waaw kooku it bokk na ci kilifa yi nga xam ne teew nañ fi délégation bu alfasi Sy Alpha Sy moom lañ tuddee maam alfasi Sy ba nekkoon ngin gi neew mu ñëw gàcceel ma ko jiitu kon daayira yooyu ci njiital sëñ Mara Diouf fédération bi nga xam ni moo lëkkale daayira yëpp ñu ngi leen di wax jër jëf ndax daaw lañu ko waajal te ren jii bi mu dëgmalee boobu ba léegi kenn toogul ci daayira yi kenn toogul ci ñii nga xam ni tamit ñoom ñoo yor comité d'organisation bi nga xam ni moom la Mara Diouf Eh, yor eh, di ko doxal ba tey jii lu ngeen fi gis rek ñoom la kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen xamal ni nag am na loo xam ni boo ko defee ba am ci ndam sañatoo dellu gannaaw kon ñoo ngi ñaan lépp lu ñu def ren rek ñu fas yéene jàpp ni bu déwénee bëgg nañu leneen lu fawxa loola ba tax na kon bu ñu fi jógee tey jii nañu ko tàmbalee waajalaat insha allahu ba nga xam ne bu déwénee mbir mi dana gën a amati solo incha allahu lépp mu ngi aju rekk ci pas-pas te jàpp naa ni am na fi alhamdulillah bu loolu weesoo ñoo ngi leen di yëgal nii euh, réunion préparatoire bi nga xam ni defoon nañu ko jamono yee ca fii ci euh, Touba Accu am na ci loo xam ni jóge woon na ca te ñu fas ko yéenee rotal ngir taalibe yi bàyyi ko xel muy ni sëñ bi ci boppam sëñ Alaaji sa joxe woon na ndigal ci euh, fédération bi yittewoo li nga xam ni moom mooy màggalu Touba màggalu Kazu Rajab màggalu càlleen ak màggalu Touba accu gi nga xam ni fi lañ nekk nga xam ne loolu yooyu yëpp dafa nekk ay màggal yoo xam ni fédération bi ci boppam fi mu sëriñ bi joxe na ndigal ni ñoo ko fas yéene di saytu ba di ko teg ci yoon anam yi nga xam ni moom la ñuy séentu ci ñëpp ñoo xam ni dañuy murit tey yëngu ci mbir gannaaw loolu yi tamit joxewoon woon na yi tamit ndigal nii fédération bi ci boppam lëkkaloo ak daayira yi ngir ñu jéem a fexe lii nga xam ni moom mooy matériel bii di def màggal bii ñuy fas yéene di ci yëngu nga xam ni danañu ci amal lenn sunu bopp lu mu néew néew bu ko defee bu ñu amee ren dara bu déwénee incha allahu ñu amaat dara déwén jéeg ñu amaan dara ci matériel bi nga xam ni moom mooy def màggal gi danañu dem ba nga xam ni màggal gi ci boppam dana gën a woyof ci ñun kon yéen waa daayira yi bu ngeen fi jógee lépp lu ñu leen yi ca loola ngeen xam ni dafa dëppoo ak li nga xam ni moom mooy ndigalal sëñ Alaaji Buso bu ñu fi jógee itamit fas nañu yéene ci ay ndigalam bépp daayira euh, képp koo xam ni ca la bokk nga am carte de membre mu nekk màndarga mi nga xam ni moom lañuy ñuy xàmmee képp koo xam ni jokk na ci benn ci daayira yi nga xam ni ñoo aju ci kër sëñ Thierno bu Bousso kon loola dafa dëppoo ak ndigal ba bu ñu fi jógee fastañ ci yéene taxaw loola yépp nag ngir yi tamit xàmmee ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci kër gi benn waaye ñaareel ba yi tamit dooleel lii nga xam ni moom mooy fédération bi incha allahu danañ ci fas yéene taxaw ñetteel ba moom lay daaneele mooy li nga xam ni moom lañ di faral di wax fii ci euh, jataay bii muy maanaam daara jii xam ngeen ni daara ji li fi nekk fi mu toll ci ay xale yoo xam ni dañuy jàng sëñ du baaxum wax na ko léegi du ma guddal bare nañu lool te lu ci nekk ci li nga xam ni euh, mooy yéwénal euh, barab bi ak gone yooyu dafay jóge ci lii nga xam ni moom mooy euh, sëñ bi te ku ne xam na ni ñetti gone dong wala juróom wala fukk ku ko yor diis na rawatina nag nga yor daara joo xam ni la fa nekk ëpp na téeméeri gone nga xam ni seeni lekk ki seeni yére ki seenu njàng ak ña nga xam ni ñoom ñoo yoo toppatoo seenu njàng muy sëriñ si fi ne kenn ku ci nekk dafa am salaire te loolu lépp sëñ bi ci boppam moom moo ko yor euh, di ko doxal kon ci biir daara jooju lañu leen di waxe ni loolu bokk na ci li nga xam ni moom mooy mébétu sëñ bi te nit ki bu fekkee ni yaa ngi koy liggéeyal da koy liggéeyal ci li nga xam ni moom mooy bëgg-bëggam kon bépp autorité xam naa ni sëñ bi ci boppam kuy séentu mu lay laaj ci daara ji jombul ni xëy na lee doo ko jox waaye kon képp kuy autorité moo xam administrative la walla local wala muy euh, ñoo xam ni sax dañoo nekk kilifa ci tund wi rek na ngeen jàpp ni lépp loo xam ni yëkkati ngeen ko def ko ci daara ji dana dëppoo ak li nga xam ni moom mooy euh, ngërëmal sëñ Alaaji Bousso ci biir loolu nag daf ci amoon ñoo xam ni walla koo xam ni euh, ba mu jëlee engagement ba léegi euh, wàccu ko benn yoon ba tax na am na ci lu bare loo xam ni xam naa ko ci boobu ba léegi mu nekk koo xam ni la mu sasoo woon amul benn weer boo xam ni rek tëbal la ko euh, muy sëñ Thierno Ngom mii ak ñeneen ñoo xam ni mel nañu ne moom ba tax na euh, du sax ñun ñoo ko war a gërëm ndax ngërëm li sëñ bee ko yor waaye li wérte woor mooy képp koo xam ni yëkkati nga ab dërëm def ko ci euh, daara joo xam ni wax dëgg yàlla lu ñuy jàngale alxuraan la li wérte wóor mooy dananu la yool waaye nag teewul bu fekkee ni sëñ bi def noo def ndaw li nga xam ni moom moom la doxalee ci digganteem ak ñenn ñu bare ñoo xam ne dañuy yëngu ci biir daara ji ñu gis ci wax dëgg yàlla ràññee ci ki nga xam ni moom mooy Serigne Thierno Ngom nga xam ni boobaak léegi wax dëgg yàlla amul wenn weer woo xam ni la mu sasoo woon euh, sas wa booy na kon wax dëgg yàlla ñun ci suñu bopp dañu ko ameel ngërëm ndax mel na ne li mu def ñun ñii lañu ko defal kon nag sëñ Thierno yow ak sa mouvement bi nga xam ni moom mooy R euh, MRCB euh, nawlonte euh, ñoo ngi leen di ñaanal li nga xam ni foofa ngeen bëgg a jëm sunu borom defal la ci lu raw seen njortu te defal leen ndam kon daal. am naa ni euh, ci loolu rek laay euh, gàttale euh, di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ci biir loolu nag dañoo am suñu jàngkat boo xam ni dafa jóge woon ba ndar ndax démb lañu ko ko wax rek muy sëñ Banda Seen mii mu daal fi ñëw ngir daan fi ñëw itamit di dundal guddi gi Euh, ñoo ngi koy euh, dalal di ko jërëjëfal incha allahu jërë ngeen jëf. mbokki jullit ñi fi teew yëpp ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di jiital ci nuyo bi sëñ baax yi mbakki suñu kilifa gi fi teew di ci teg sëriñ Fàllu Buso mi nga xame ne mooy suñu xalifa bëgg wax nag ci turu njabootuk sëriñ Cerno gi nga xame ne ñoo fi nekk. ne xam naa ne sëñ Abdou Lahad Bousso sax moo waroon na xëy na def wax ji waaye daf ma ci euh, wax ne ma nag ko defal may lu baax nag xëy na wax moom day xaw a dama ci xaw a am gànt tuuti waaye dañ ci góorgóorlu rek ginnaaw ndigal la ñuy sant sëñ bu baax a baax rek te di ko jox wàcc waayam bu baax te di ko xamal ne am nañ mbégte bu baax a baax ci liggéey bi nga xamee ne maanaam moom la nekkee ci dëkk bi ndax li ma waxoon daaw rek sëñ bi ba mu fiy ñëw sëñ Ceerno dafay fekkoon ak lëndëm ku lëndëm këriis mu dikk fas yeneen la nekkoon yitteem yëpp mooy dëkk bi nekk dund ci ak leer te tey jii suñ demee ba jamono yi ñu gis ñu fi tari alxuraanul karim danañ xam ne loola ñaan googu moom suñu borom nangu na ko te loolu lépp nag ci yàlla sa jëmm ji la ko suñu borom jaarale mooy loo xamee ne lu am am solo la ndax xam-xam nag moom mooy lépp ba loolu dañ ciy jàll ci sëñ Modou Baax wax na ko léegi ci wàllu euh, daara yi nga xamee ne maanaam yaa ngi ciy taxaw di ci liggéey muy lu am am solo moom itam ndax xam-xam mooy jëmmal lépp moom sunu borom ba muy tagg borom dara euh, daraja yi dafa wax yarfa'u llaahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajaati borom borom xam-xam waxoon na al ilmu yarfa'u baytan laa himaada lahu wal jahlu yaadimu baytal hissi wa saraf xam-xam moom mën naa fekk mooy fekk lu kawe mu gën koo kawe ba ñëpp di ko séen waaye réer tamit mën naa suufeel mbir ba màbb ba dootu dara te loolu xam loolu nga gis ba tax nga jël daara ji ak nii nga ko fonkee ba xale yi di fi mën a tey tari alxuraanul karim loolu tax na ba njabootu eh, sëñ bi yëpp ñu ngi lay gërëm ci loolu bu baax a baax a baax te xamal ne loolu ñun ñëpp nga ko defal ndax ku ci ne ñun ñi war nga fee waroon nga fee teew loolu nekk sab liggéey ni mu la waree rek ñu ñëpp noonu la ñu waree waaye nag taxaw bi nga taxaw ci suñu kanam gën nañoo may fit te it gën nga ñëw wan yoon wi bu baax a baax ba tax ñun ñëpp ci kàddu Sëriñ Abdou Lahad Bousso njabootu Sëriñ Thierno Soxna May ak ñëpp ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm te di la xamal ñu ngi sa ginnaaw waxtu wu ne waaw fas yéene rek saa yoo gëstoo di ñu gis sa ginnaaw bëgg a dolli ab soññee tamit ci taalibe yi nga xam ne ñu ci dëkk bi ñoom itam. ndax liggéey bi mu fi liggéey moom ñun ñëpp gis nañ ko li jëm ci poste santé bi Modou Bakhoum doon wax ak daara jeeg yar bi nga xamee ne moom lañ yar xale yi loolu lépp muy lu am am solo loolu daal wax dëgg yàlla amuñ fu euh, lu gën a kawe cant gu gën a kawe gi niñ ko niñ ko bëgg ni ma ko bëgg waxee sax mënewuma ko noonu waaye ñu gën a góorgóorlu lu baax a baax ñun taalibe yi ngi te gën a fonk sëñ bi nag ndax xëy na soo gisee ak wooyafaayam mën naa tax nga nga xaw koo jege ba miin ko sax ba xëy na def lu dul noonu waaye jot naa ne ñi nga xamee ne dañ naan képp ko yilifu dara képp ko yilifu sam nawle la te nawleem yi nga xam ne ñoom la fi nekkal nawloo nañ ko teg nañ ko fi ñu ko war a teg kon taalibe yi tamit ñu war nañu gën a góorgóorlu lu baax xam sëñ fi ko war a teg teg ko fa te bañ ko topp ci lewataayam bii rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax kat dañuy wax naan bërigo bu def bërigo bu si bu diis gan soo koy béréen doo dégg benn coow waaye bëriwul deful dara moom ab dërëm rek su ci nekkee soo koy béréen dangay ngay dégg muy coow li bari lool loolu nag tegtal la ci lu baree baree bare waaw kon nañ gën a góorgóorlu bu baax nañ gën fonk xam-xam bu baax fonk xam-xam bu baax a baax te it euh, fonk liggéey ndax liggéey moom moo lay mën a dimbale ba nga mën a ndax gor su ne war na jiima liggéey di dundee aw ñaqam te yit lépp lu muy sor rek wala lu muy jëf mu nekk loo xam du leew lay doon waaw te liggéey boobu nag maanaam bokk na ci li ko gën a gën a dëgëral mooy ragal yàlla ndax soo gisee dafa am benn borom xam-xam boo xoon sax juróom benn bay nit ñi dañu yaakaar ni liggéey rek ci la xëy na euh, wërsëg mën a jóge waaye da am na boroom xam-xam boo xam ne asbaabu risqin sittatun muhaqqaqa toxam tawakkulun salaatun sadaqa kazaka listixfaaru wa taaruku wal kullu fi l qurani jaa mudraku mu ne am na juróom benn bayit yoo xamee ne maanaam yuy maye wërsëg la te loolu ñëw na ci alxuraan bi jiitu mooy ragal yàlla ndax sunu borom moo ne wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib bi ci topp mooy wakkiilu ci sunu borom ndax sunu borom moo ne wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh bi ju topp mooy julli ak di ko digal sa njaboot ak sunu borom moo ne wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha la nasaluka rizqan nahnu narzuquk bi ci topp mooy saraxe ndax sunu borom ma wax na ne wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yaxluf bi ci mooy di bari looy def al istixfar ndax sunu borom moo ne fa qultu staxfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursili sama aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara bi ci topp nag mooy liggéey bii nga xam ne moom la ñuy def kon nga gis ne bari na anam yu nit mën a def ngir am dara kon loolu ñu gën cee sax te loolu suñ ko suñ ko defee rek dañuy gën a yóbbu ci yóbbu ci jaamu sunu borom ndax jaamu yàlla ci la lépp nekk kon ngir bañ a guddal maa ngi jégalu lu baax a baax waaleykum salaam. di nuyu kilifay daje bi muy sëñ du Baaxe ay jox sa wàccuwaay sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla yàlla yàggal la ci kanam njaboot gi. di ci teg sëñ Fallou. di ci teg nag bépp kilifa diine bu fi teew kenn ku nekk nga lay jox sa wàccuwaay bare nañ fi macha allah ndax gis naa fi kër diine yëpp ndax commune bi mën naa ni département bi moo ni mel euh, ku xewle ku ne dinañ la wuy si ki ñu wuy si tey nag kenn mënta tànqam li tànqam lu bësam ndax du tànqam lu benn bis nag loolu mën naa ko seere kon sëñ Fallou ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi di la di jaar ci yow di ndokkeel bépp taalibe di ndokkeel bépp daayira di ndokkeel bépp kilifa diine bu fi teew yàlla na yàlla saxal leen ci kanam njaboot gi loolu lay njëkkee ci teg li ci tegu mooy damay feddali rek kóllëre yi sama kóllëre ak yow ma kóllëre ak kër gi di biral sama cofeel ci yow xam nga ko defe naa bu baax a baax ndax lu yàgg la yàlla na yàlla saxal diggante bi na yàlla gën koo sellal itam nag di la joxaat loxo di la won ni ko conseil municipalu Gagny gi yëpp a ngi sama ginnaaw di la tàllal loxo di la déglu itam ci lépp loo soxla lu ñu ca man rek incha allah dinañ ko ca def luñ ca mënul it danga ko xam yàlla na yàlla saxal diggante bi bu baax a baax euh, maa ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel baaxum dafa wax léegi nii jàngalekat nga waaye acteur de développement la ma bëgg koo biral itam na ndax man njàngale moom ku ci xuus ku ne faw ma ma bég ci ndax nitu jàngale maanaam nitu éducation la kon bu ma gisee li ngay def fokk ma fësal ko fokk ma biral ko li ngay def ci daara ji defaloo ko ngir sa bopp askan wee tax nga def ko ndax éducation ci boppam moo mënul def lépp ofre bi ci boppam li nga xam ne moom la euh, ministère éducation di joxe munta dajal ñii dañoo bëgg français ñi bëgg arabe ñii bëgg leneen ñii bëgg lislaam ñi bëgg leneen yaa ngi ciy béy sa wàll bu baax a baax a baax daara ji xaaroo ci kenn wax nga dëgg mosuloo ñaan kenn ku ñëw rek dala cee fekk loolu nag tradition la ci kër gi kon yàlla yàlla jàppale la ci teel la yan bi ndax ngin ko nga mën koo wéyal di la ci gërëm di la ci sant acteur de développement la ndax mënoon ngaa yem ci daara ji di jàngale rek macha allah waaye li tax ma ni acteur de développement la da ngaa yemul ci loolu poste de santé bii yaa ko créé yaa ko sos yaa ci taxaw ba mu yegg si fii mu yegg si nii xam naa ci bu lu baree baree bare bare ba tax na ba ma ko yëgee xam ni ñun ngay defal parce que man mii di maire su ma sañoon dëkk bu ne ci commune u am poste de santé waaye benn poste la commune bi amoon ak cinq cases de santé nga jël sa bos ne yow faw nga fexe ba mu nekk poste de santé tabax ba euh, yaa fexe ba mu taxaw am jëmu poste de santé mën a dékku lépp luy service de santé ba ma ko yëgee xam ni ñun ngay liggéeyal dama jóg ñëw ba ci yow ñu ànd ca post ba visiter poste bi xool la fa nekk ak la fa nekkul la fa am ak la fa amul xam ni kii kat ku ci jàpp dina jóg loolu laa njëkk a def euh, at moomu fekk na ñun mairie ñu def sunu budget ba pare munuñ ci woon a def li nga xam ne ni moo moom la euh, mairie bi warloo ak poste de santé waaye la lañ xësoon euh, euh, commandé poste ba am na ca ma digge woon diggoon la nag nii at yii di ñëw lépp lu poste de santé di am poste de santé bu accu bii dina ci am ren jii 3 millions médicament lañ commandé poste de santé bu gañik ak bu accu ñoo ko séddoo kon xaaruñu woon Euh, case bi nekk post wala xaar arrêté bi ngir def ca sunu loxo leneen li mooy ba ma demee ministère am fa matériel boo xam ne ni waa direction infrastructure ak matériel ñoo ma ko jox moo muy matériel pour relever poste euh, euh, niveau technique wu poste de santé yi poste de santé bu àccu moo ci njëkk am gañik door caa tegu ñu am tuuti lu ñu dencal poste de santé bi nga xam ne moom lañ planifier woon mooy bu bu bu Ndingler te ubbeegul kon xaaruñu woon vraiment arrêté bi pour vraiment jàpp ca la nga xam ne nii moom la poste de santé war a am te mairie bi war a koo def ndax santé compétence transférée la loolu nag dama lay biral ni incha allah ndax feek ñoo ngi fii loolu dinañ ko wéyal dinañ ko dolli incha allah ndax daaw un million lañ defoon ci médicament ren ñu def 3 millions déwén incha allah bu nu ko yàlla maye nañ def 5 millions te poste de santé bu bu dina ci am incha allah. loolu daal comme loolu rek lañ tudd euh, la loolu laa bëggoon a biral ñëpp di dalal xelu ñëpp di la joxaat loxo di ko jox di jox loxo nag taalibe yeeg population bi yëpp di la gërëm di la sant bis bii du bisul wax ju bare. bisu ñaan la ñu ngi lay tàllal suñu loxo di la ñaan nga ñaanal ñu président la république allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa rahmatullahi bokki jullit yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci tuuru mboolem mbokki mbusoo bi ak mbàkke te bokku mbàkke gi ki jiitu di cheikh seydul Muntaxa ah, afisahu llaahu wa raha bokk mbusoo bi gi ki ci jiitu sëriñ mbusoo bi mbusoo xalifa sëriñ mbusoo bi ak sëriñ saabus ak mboolem mbokki tubaa ak génne yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi nag kilifa jataay bi cheikh abdul baax yi bàkki mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ndax mooy xalifa sëriñ Abdul Baax sëriñ Xaasim Mbàkke waaye di xalifa te ko sëriñ Cerno itam ndax ñoo bokk lépp te ak ci ñoom ñëpp sëriñ bi ñu ngi lay siyaare di la nuyu di nuyu itam sëriñ Fallou Bousso ak ay rakkam yëpp njaboot sëriñ Cerno góor sant bu baax a baax sant yi nag mbooleem mbokk yi nga xam ne ak taalibe yi xam ne ñëw nañ fii wuy si ci woote bii di xamle fee day ñëpp amoon yéene teew si ci bis bii ku dikkut yónnee nga mbaa nga yóbbanti ku dikkut yóbbani woon tuuti yéeneem ñëw na ak xelam ak xalaatam ba tax na kon ñëpp teewandoo nag daa yombut waaye ñu bari teew nañ fi kon ñi fi ñëwoon ba noppi dem ak ñi ñëw waroon ñëw te ñëwuñu ñëpp kàddu yi ñu wax moo leen yóbbaale ñoom ñëpp kon sëriñ Fallou ñu ngi lay nuyu ci turu mboolem bokk yëpp di ñaan ci daraje sëriñ Touba itam bis bii. lépp lu ci waay ñaan yàlla nangu ko alxuraan niñ ci jàng xasida yiñ ci jàng yéene yu baax yi dox ak bokk ci daje lépp yàlla daj fa muy aw yiw ci sëriñ Fallu bi nga xam ne moo moo tax ñu def ko ak mboolem ay taalibeem ak ay bokkam ak sëñ Cerno ak ak mboolem ñi fi nekk itam di dund ak ñuy war a dund du jëm àlaxir ba liggéey di xamle ne lii lu am solo la lu rafet la ay bokk jullit yu dajaloo te jàmm rek tax ñu daje ku loolu am solo la te it daa war dox ak bokk daa war te jamono xat na mayeetu ko ba tax na fu dara xewut ña ko séq gisante dana jafe ci lool su dara xewee nag ñëpp yëg ko kenn ku ne basa yite dikk fa ñu gisante nemmi konte loolu amut yiwu ko ëpp ndax sikk néewu ci ne am na ñoo xam daaw la jëkk a gisante fii pare ñu dajawaat fii ren kon loolu aw yiw ëpp ko kon bokk yi ñu ngi leen di sant te di leen gërëm tey ñaan lii ñu gën ko fonk gën koo taxaw bu baax a baax te xam ne bés yi du bési caaxaan lu am am solo la bés yi bés bu set bu dikk danañu fàttali ko borom bés ba fàttali ko ñu ko fàttali ko nag la ci ëpp importance mooy jikko ya nga xam ne mooy yu baax ya mu kooku nekk woon jëf yu baax yi kooku nekkoon ñu di ko jëf am maa baax yi moom du lu ñuy royee kenn du loo xam ne mën nañ cee jariñu ci wàllu di ko roy waaye nag jëf yu baax yi mu def jikko yu baax yi mu amoon kon mënees na koo roy amul ku mënta roy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ koo roy kon keneen waxi noppi kon nag jikko yu baax yi wax ci bokk yu baax yi ci kilifa yu baax yi fi nekk ñi dañ màggal yooyu nañuy bàyyi xel ci jikko yooyu baax te xam ne référence la ci doon boo xam ne buñ ko jë buñ ko toppee danañu am euh, mujj gu rafet te nag jikko yu yàq yi fi nekk yëpp kat la a mooy roy ku ñu war a roy xool ñu ñu war xool déglu ju ñu wut a déglu noonu nag dañoo am obligation ci roy suñu mag ñu baax ñi fi nekk te nekkoon fi te wax fi seen jeexit yi fi nekk di roy si ñoom bu baax a baax déglu seeni wax ak seeni jëf ñu fas cee ne tënku te bañ a topp nag caaxaan yeeg mbogo mbogo meeg mbojo mbojo ji nga xam ne mi ngi am ci jamono ji te xew kon loolu dañu xam ne du farata du sunna li farata du sunna nag mooy la sëñ bi santaanoon doon ko def te doon ko doon ko digle yaroon ci ay ay njabootam kon loola ba fii ne sëñ Thierno nekkoon mag ñi baax ci nekkoon kon loolu noonu ci continuer te sax jàpp ci baax baax kon lu dul loolu nag ay caaxaan la te caaxaan amul solo ndax Sëriñ Tuubaa daa wax naan rajaa u jannati bila taati fi sunnatil maahi xururun yaati yaakaar ne boo dee dem ajana te na ci loola neex ba dee ñu ne loolu ak woru la kon nag képp koo xam ne kii da ngay tënku ci sëñ bi déglu ak déggalam da ngay roy nag ci déglu ndigal yi mu doon digale nga di ko yëf li mu doon tere nga di ko bàyyi su fekkee bëgg ëllëgee nga gis ko ndax koo topp ci moom kat mu jëm penk nga jëm soow loo gën di wax gën a sori ak moom kon nag góor góor lu baax a baax jéem a tënku ci ndigal yi jéem a bàyyi tere yi te bàyyi caaxaan yi te xam ne Sëriñ Tuubaa fowut foluwut yàlla fowut foluwut kon nag pom yi nañ ko wattandiku te bàyyi ko te xam ne du dara kon ñu ngi balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di siyaare ñëpp di leen euh, ñaan barke Sëriñ Tuubaa ñu teew fi at yu bare bare bare bare bëri Sëriñ Fallu mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Ceerno tey euh, di dundal bis bi ni mu koy dundale kon ñi ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te bàyyi ko fi di rafetlu taxawaayam bu baax a baax ci kanam mbokk yi taxawaayam ci kanam taalibe yi te taxawaayam ci dëkkandoo yi kon ni ñu ko seeral kon lu wér la ci ne ni mu fi nekkee kon la mu fa nekk la nekk takat loolu mbokk yi dañ ciy siggi dañ ciy sagu itam ndax mbokk soo ko amee mu ne fi barab moom bu defee safaan ba du temi mbokk su baaxee mbokk la su baaxut it mbokk lay doon kon nag bu defee la mu war a def nag loolu da nga cee siggi sant ca bu baax te te te sàggu ca kon nu ngi koy ñaanal yàlla yokk ko xéewal gën ko fay wéral yàggal ko jawar suñu ceerno bu su gépp ñu sant ñëpp di bala ak ñëpp di bala ak ñëpp wasalaam aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw gannaaw bi nu sante yàlla julli si yonent bi

surtout monsieur gouverneur de la région de de Kaolack surtout madame le euh, le de du département neew Guinguinéo surtout administration bi yëpp mais avant kenn di ñëw surtout chef de service yi ma àndal. parce que kat sànq de sëñ euh, sëñ baaxu mi ngi koy wax ni ñoom lépp lu waroon ci bés bi def nañ ko ma ni loolu nag bu fekkee préfecture daf ci am sac sa sac boobu li nu war njëkkee ñu nu war njëkkee ci gërëm leen ko. sant leen que moom mooy chef de service yi parce que ñoom lu jig njaaga njooy njaaga préfecture day nekk rek di di coordonné deful leneen mais bépp action bu am si territoire yi bépp action bu am si fu mu mën doon rek c'est parce que chef de service yi ñoo si teg seen loxo bu ñu jógee si loolu di leen félicité di leen encourager si journée bii ngeen def journée religieuse bi parce que kat léegi dama dégg lu dal sama xel si discours yi ba nga nee sëñ bi kat agent de développement la sama xel dafa gën dal parce que ñun kat administration publique lépp lu ñuy dox mooy développement donc bu nu demee ba kilifa diine fekk ñu ci cadre boobu loolu wax dëgg yàlla sunu sag la sunu ndam la dañuy faral di wax rek ni administration benn pàcc rek la ci état mais lu yore état dëgg-dëgg moom mooy spirituel du temporel bu ñu nee temporel rek temps la cest à jaar jàll la mais spirituel moom day demeurer. parce que du matière du loo xam ne dañ koy dañ koy naatable di wax ni rek sunu xel dafa gën a dal bi sunu sunu papa ji di Alaaji Nguy ba mu ñëwaatee si histoire u maam Borom Touba radiyallahu anhu li si wax dafa am solo trop parce que chronologie boobu ku ko xool rek xam ne liggéeyu maam Borom Touba moo waral moo waral bés bi donc lépp lu si yiw rek lépp loo xam ne lu baax la rek day dellu si moom di ñaan yàlla yàlla yokk leeram yàlla dolli ñu taxawu si barkeem ñii di njabootam tamit yàlla bàyyi leen fi si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ma déggaat leneen si discours yi ñu ni sëñ bi kat jàngalekat la mu ni loolu peut-être que répétition la moom la tubaab di tuddee redondance parce que sëriñ day jàngale mais bu ngeen ko waxee ça veut da ngeen bëgg gën a dëggal loolu mu gën leer rek te da damay faral di wax ni bés yi du dara lu dul bés yoo xam ne dan siy fàttali nit ñi dan siy fàttali jullit ñi ni leen yoon bu baax baa ngi kat ku bëgg tedd ku bëgg tekk da ngay tegu si yoon bu baax bi yoon bu bon bi na ku yeboo moytu ka te sunu borom moo wax loolu si suurat la azariyaat si aaya juróom fukk ak juróom desaan sunu borom di wax ni nee na fa zakkir fa inna zikra tanfawul muminina mu ni na ngay fàttali parce que fàttalikat dina jëriñ jullit ñi donc jotaay bii dara waral la ko lu dul fàttali jullit ñi moo tax ñun suñu xel dafay gën a dal madame le préfet nag bëggoon na fi teew trop trop mais dafa am benn ngant mais buñ fi teewee rek chef de service yi teew fi mi ngi mel na département bu gën gi neew yëpp teew nañ fi di leen wax daal suñu kontante am na fu mu commencé mais amul fu mu jeexee peut-être que ñu ngi fi soogaam ñëw mais dama ne jotaayu sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba kenn du fi soogaam ñëw parce que foo mën toll si Sénégal rek jotaay am pour sëñ mi ngi mel na teew nga fa am si moom ak si sëtam yi macha allah beneen bi si topp comme ni ñu ko waxee woon rek sànq ak sëñ bi am information rek boo xam ni occasion la pour ñu jàllale ko pour population bi yëpp. information bi mooy que ni danu seetlu woon ne madame la préfet dafa seetlu ba mu ñëwee ni population wu gën gi neew dañu daan jóge fii dem ba Kaolack pour mën a déposé lu ñu tuddee carte d'identité nationale te Kaolack ak gën gi neew dafa xaw a sore moo tax ba mu ñëwee mu ubbi benn bureau au niveau de la préfecture. pour que rek képp kuy déposé de d'identité biométrique nga ñëw foofu incha allah daa ko mën déposé au lieu ngay dem ba Kaolack beneen bi si topp sànq maa ngi si waxtaan ak sëñ bi mooy si question sensibilisation parce que gis nañu dëkk bi insécurité bi fa nekk léegi yu ñaaw la ñuy gis ay rey yoo xam ne kenn xamul lan moo siy poussé nit ñi te yooyu yëpp pour wax ni rek force de l'ordre yi bien vrai que ñu ngi fi mais population bi buñ leen mënee jàppale si côté boobu côté sensibilisation ak côté prévention dina baax trop donc prévention nag mi ngi commencé si moytu moytu mooy lan waa village yi ñu dëkk si village yëpp ak quartier yëpp généralement daanu xamante seen biir donc bu ñu gisee koo xam ne rek mu ngi nekk si village bi walla mu ñëw si village bi mu ñëw si quartier bi te xamuñu ko fa buñ ko mënee jottali force de l'ordre yi dina baax trop ñoom ñu jël ci seen ay ay matukaay waxuñu ne ku fi ñëw rek da ngay def lu bon. mais fagaru moo gën moo gën faju moo tax bun si mënee jàpp rek incha allah pour ñu gën a am kaaraange dina baax bu baax a baax incha allah la si topp rek mooy xanaa di wax rek si occasion yi ak kilifa yu baax yi fi toog di leen di leen soññ ñu ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal région de Kaolack ñaanal département de Guinguinéo ñaanal arrondissement bu Ngélu ñaanal commune bu Gagnic ñaanal village bii ñu tudde Touba Accu pour que yàlla musal leen si bépp menace bu mu mën doon boo xam ni mi ngi lëmbee àdduna bi te menace bu gën a rëy actuellement si monde bi xam nañ ko moom mooy virus boobu nekk Chine ak yenn dëkk si monde bi mu nekk virus bu doy waar parce que jusqu'à présent kenn mënagu ko maîtriser démb sax maa ngi dégg ni Afrique am na benn kaa heureusement cas bi c'est en Égypte heureusement du doomu Afrique benn étranger la mais xamuñu kan la parce que gars yi dañuy denc information boobu di ñaan yàlla rek yàlla na yem foofu waaw sëriñ yi yéen it ngeen jàppale ni ñaanal ñu bu baax a baax parce que yéen suñu sunu protection bu protection amee rek c'est parce que yéen a si jàpp yéen a ñaan ñaan yàlla yomb na yombul ñun mën nañu ñaan yàlla mais dafa am ñoo xam ne ñoo gën jege yàlla te yàllaa ko wax donc yéen dañuy jokk si yéen rek incha allah ngeen ñaanal ñu dolli ñaanal ñu incha allah pour que yàlla dolli ñu dolli ñu saafara ba lépp loo xam ne menace la rek bu war a dugg ci Sénégal yàlla ful ko incha allah xanaa may tëj rek di wax ni man kaana lillaahi kaana laahu loxo ni ko suñu borom waxee ku nekkal yàlla yàlla nekkal la. jataay bi def ñu ko pour lenn lu dul nekkal nekkal yàlla te incha allah am naa gëm-gëmu gëm-gëm ni buñ fi jógee avant ñu fiy jóge sax yàlla mi ñu nekkal ni te buñ fi jógee tamit danañu dolli nekkal parce que moom moo tax ñu ñu woote jataay bi parce que sëñ Touba si yàlla rek la daan dox ak si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ce n'est pas pour rien mu tudde boppam xaadimu donc di ñaan yàlla rek yàlla dolli ñu sàmm incha allah sàmm suñu njiit ñi sàmm suñu ki kilifa diine yi kilifa aada yi administration bi di dolli sant suñu chef de service yi du ma jóg mukk si di leen sant lu jig njaaga ñoom ñooy njaaga di wax rek sëriñ bi ngeen ñaanal leen bu baax a baax ñaanal mbooloo mu jullit incha allah yàlla na yàlla motal lépp waa jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokk yi di leen sant te di leen gërëm di leen balu àq bu baax te di leen balu kàddu yi nag lépp luñ fi waroon a wax wax nañ ko dama naroon sëriñ Aydara mi ñëwee lépp luñ fi war a wax moo ko war a wax jiit na luñ fi war a wax itam wax na ko maanaam su ñëwul nag sëñ Mor bi moom itam mu jël kàddu ndax ñoom ñoo fi nekkoon. gannaaw yàlla dogal na nag jataay bi yàgg na luñ fi war a wax ne ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu teew ko ay at yu bare bare bare te lépp lu ñu ci jublu ci lu baax yàlla na ko suñu boroom defal ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon sëriñ ma ngi ñu ñaan jërë ngeen jëf ngeen baal ñu ñuy gërëm bu baax Walfa Walfa FM mel na ne mbokk yaa ngi woote boobu ba léegi ci Touba ak di wane ne ñu ngi teewlu waxtaan wi en direct kon jërëjëf sëriñ Abdourahmane loolu liggéey bi rafet na lool ñu yàgg ko ànd ak moom ñu koy sant bu baax amiin yaa rabbal ngeen jëf kon ñu may kilifa yi ñu jàll. TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer